Bou Siteu lan lay wax boo yi nga xam ne ñu ngi dund milieu tey suñu rakk yi suñu mag yi suñu nijaay yi dund milieu mu xaw a tar lool xaw a métti ñu nekk 100 ñu ñi nekk camp pénal ñi nekk kutaal lan nga leen di wax ci nattu yi leen dal ñu génnaatee. waaw li ma leen wax rek muy maanaam gars yi gars sax dépassé nañ léegi niveau yooyu gars yi léegi ñuy yor seen moto cag-cag di dóor waar booy nante yu bëri yoo xamante ni man la sama waay bàyyi nañ te parce que yow gis nga sensibilisation yi may def man ñaax bëgg ñu may déglu donc gis nga émission bu ma def def si sensibilisation dama koy damay fexe boo yëpp gis ko ñoom ñëpp laa koy envoyé ñu koy partagé xam nga boo yëpp bàyyi nañ yooyu waaw di wax ne daal tribunal bu Guédiawaye bi la ñuy ñaan rek maanaam waaw sànq na daal boo yëpp quoi instant yi boo yëpp a ngi si kaso bi di tëdd ay peine yoo xamante ni mën na la sam waay ay fee yoo xamante ni xam nga ay jamono da ay taxaw ñu tëj la un mois wala 15 jours yar la pour boo génnee nga bàyyi te parce ñëpp xam nañ kaso nu mu méttee mais tey nga jàpp benn booy boo xam te ne problème mu benn affaire bu ndaw nga tëj ko si trois ans xam nga dëgg la yàlla day tege nattu yàlla da lay teg nattu nga dem jël alalu jàmbu te doo ko tayre mais yàlla moo lay teg nattu pour wan la àdduna wan la àdduna nu muy doxee mais juge yi war nañ am compréhension boo xamante ne xam nga da ngay gis fee bu ndaw fee boo xamante ni mën na la sam waaye xam nga yëre sax danga moo loolu ay science ñu tëj la si trois ans ne dañ lay yar nga génn màgg nekk bandi sadik dundu ranking si biir kaso bi yenn saa nga gis koo xam day ful fulaale kaso feebar boo xamante ni mën la sam waaye xam nga deux mois la fi am génn àdduna du benn du ñaar xam nga yooyu noonu yëpp maam kaso daal képp ku fa yéene nit la pour man kii da ko bëgg a rey te parce que foofu am na feebar yu bon yoo xamante ni bu la fa dale faj bi demeewul noonu gis nga pavillon ñaata junni doomu aadama ñoo fa nekk tëdd fa waaw te amuñu faj bu baax yenn saa yi ay aspirine lañ leen di jol di leen koy jox te aspirine lan waaw di bëggee di ñaanal ñu nekk pavillon yàlla ba kii leen waaw di wax tamit bokkande waaw di ko jaale benn message waa ak ministre de la justice bi tamit xam nga innu chef de kaso bi waaw gars yi dañu may message chaque jour waaw am na si booy yu bëri yoo xam ne seen sëy yaa ngi tas nit ñi ñu ngi ñëw foofu di leen ñaan baat xam nga ay ñoo xam ne takk ay jabar yu ndaw bàyyi leen fii nii xam nga may ñaan daal chaque jour dañu may bind message ne lii pour ma jàllaleel leen ko te lii bëgg naa après Mouhamed suma xare la xam naa dina ko jàllale si télé bi waaw maanaam gars yi dañu may message di ma wax pour seen soxna yi waaw ñu leen may ay kii yoo xam ne seen soxna yi dafay ñëw ñuy mën a di sëy ak ñoom. comme waaw comme ñi ñëw ñi ñuy kii leen seen soxna di ñëw ñii mën a sëy ñoom. te parce que abal néeg ñuy sëy ak man may leen benn ay temps yoo xamante ne xam nga genre visite lay doon visite contact boo xam ne yaa sa soxna xam nga te parce que ñu si bëri seen sëy yaa tas boo boo yaa ngi fay dem di ñaan baat. mais est am nañ place mais loolu maanaam gars yi si war a taxaw dañ si war a dox si mu gaaw nag waxuma la sax muy yéex di daa diire benn un wala muy diire benn kii waaw ma la sama amul lu munul nekk xoolal tubaab yi tubaab yi foofu dañ lay tëj mais la sama waay sa soxna day ñëw nga nekk si jaamu waxtaan xam nga gars yi dañu may bind message yooyu gars ñëw dañoo sonn. taalibe bu mën a déggee gars yi nañ may nañ may soxna détenu yi nekk ci biir ñuy ñëw mën giseek ñoom ñu mën a ñuy mën a sëy di sëy seen seen seen jabar la ku la lew la mais yow di nga jàpp benn nit gaan mu la sam waay feebu ndaw nga tëj ko benn 3 ans wala nga tëj ko benn 5 ans jabaram nekk fii di souffrir di jaabante yenn saa yi day dem ba jeexal man ñu si bëri ñoo xamante ne nii man man moo tax man ndeysaan moo tax man su may toog naan man da si social laay dox am na ñoo xamante ne nii ay ree di def te parce que man xam naa ne man am na loo xam maa ngi koy dund loo xam man mënu ma toog di kay wax waaw mun mënu ma toog sax di koy wax waaw moo man gars yi dañ ma war a teg loxo man damay ñaan yàlla gaaw awu gars yi waaw ñu nekk si kaso man du yor dara man lu ma yor kaso envoyé booy te parce xam naa waaw ñooñu mënuluñ seen boobu dara man lu ma am kaso bi laa koy laa koy jox may damay envoyé ba jeexal wallahi man damay ñaan yàlla yàlla dimbali ma ma am waaw ndax mën a am ñu ma mën a taxaw sauver leen te parce que affaire yi métti na parce que Serigne Bamba Mbacké. ok première partie bi moom moo nekk noonu muy wax lu am solo nag mu ngi wax lu doy waar loo xamante ne gars yi war nañ cee bàyyi xel loo xamante ne lu am la sa yaa ngi tas am na jigéen ñoo xam ne mënuñu toog xaar may jaarale benn appel boo xamante ne koo xamante ne sama rakk la sama xaat ñu naan ko Papa Tungune Ouzin Keita toog na barki démb euh, émission bisu ah. toog na foofu jàllale message boobu ne kooku dañ koo jàpp ci erreur ndax daa am ñu ko agressé woon mu jaawale ki ko agressé ak kooku parce que bu ma juumul mu ngi ci 4 ans yoo xam te mu ngi ko tëdd ci loo xam ne defu ko ñu ngi ñaan yàlla ñu jéggal ko bàyyi ko mu dem ndax tëdd na 4 ans yoo xam ne dañ koo jaawale ne moom moo agressé Ouzin Keita te keneen moom moo ko agressé kon loolu dafa nekk loo xamante lu am la